sa bo xamé ne nit dalaa xas wax la lu ñaaw teggin ni nga wara samonté nit xas na la wax la lo xam lo xamné wax ju ñaaw la néna bul mer mukk ngir wax juñ la wax ndax ku la wax wax ju ñaaw xolal rek sa bop lim la wax lim la wax bu dé dëgg la wax ju ñaaw la waye xam nga ne lim wax dëgg la néna xamal ne bu boba nga gor gor lu ba jikko joju dañ ci yow mo ëpp njëriñ ci yow ngay mere kooku ba nga jima xlok mo néna ni ngay def rek moy jàppal ne suñ borom moo bëgg a wax ak yow jaaree ko ci kii bëgg laa wax ne la jikko jikko jikko ju baaxul la te mi ci yow fexeel mu dañ nu gën a gaawee nee na loolu mooy lim la wax dëgg la waaye bu dee lim la wax it wax ju ñaaw la waaye du dëgg nee na boobu jëru nga ci mer ndax moom li mu wax taqu la fenn ëllëgee dina ko lay ak boroomam nee na ni ngay def mooy da ngay jàpp ne rek wax ji suñu boroom la bëgg xamal ne la jikko ji la kii waxkat jikko ju baaxut la néewut ci yow waaye fexeel ba bu ko jege fenn nee na boo defee noonu ku la xasit moo ci mujj moo tax bi daana tere lool mag ñi ñuy mer di topp seen mer daana leen wax ne boo meree bul ne damay def ba mu faju bul ne damay wax ba mu faju muñ ba mu ne ndax boo nee damay def ba mu faju day sopp ko sawar a lakk la boo nee damay wax ba mu faju day sopp ku gaynde fàdd la ne boo nee damay muñ ba mu faju nag day mel ne daa sopp ku ndox mu sedd nga naan ko xam ngeen ne daana leen wax ne leen eh, kuy tooñ du mucc kuy fayu du noppalu ne leen te ñu tooñ la nga muñ war ngeen ko jàngee ci man te xam ne doy naa ci misaal ne ndax buñ la tooñee nga muñ suñu borom dalay fayul tooñ nga fay la muñ nga kon kuñ ci tooñ te na muñ te bu mu topp